salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam. tur la seexu la. ture Touré. naa dañoo gis démb ne Sénégal dafa fuwal match euh, moog Eswatini ñu def niil niil. est ñoom lu wane démb dalal na xel pour CAN 2022. dalal xel ndax ba kaataata démb match nul la woon démb match la woon dëgg la ñu yaakaar ne yow ñoom ñoom nee nañu qualifié nañu ok qualifié nañu mais qualification bi ñu def. baax na xëy na baaxul mais baax na quand même mais dajeeguñ ak ponkal Aliou Cissé boppam moo ñu war a jox suñu équipe ñu seetaat keneen ku baax ñu jox ko ko man waxante dëgg non doyuñu doyuñu parce que complexe am na ci biir te joueurs itam yaa ma gën a xam ni ñuy jouer nii kenn ko. buñ gisee tey ku ku ku gis tey rek ñu dugal ñu ñu ne kii moo ko yor moo ko yor moo ko am na am na benn joueur nu mu tuddati sax Alioune nu mu tuddati non Matar Cissé la xaw ma man démb laa ko dégg ñu daal di koy naw xaalis lu gaaw gaaw ah ci bees bees gi lii sëñ bi li des dafa bari sa moo ñu mën a may jox équipe bi rek ñu tubaab jox ko ko ak amul foofu mais ku ñu indil ndam lañu war nañu war indil ku ñu indil ndam. man Aliou Cissé mii ma gis wax dëgg yàlla ah mi ngi noonu daal amagul daal lu lu résultat boo xam man am naa ci yaakaar te bis bu ñu demee ba làmb ju ubbi nga xam ne lépp dëgg la. mais est-ce que équipe nationale euh, instant nii toll na ci defar Sénégal équipe bu mu yor ne est-ce que toll na ci defar. no entraîneur la manqué booy yi may football yëpp ñoom Paris la ñu nekk ñii ñi ngi fu ne di football ñëw di football fii mais gisagul lu ma xam man daal wax dëgg yàlla aw ma confiance te xaaral lii dañ ko waxaat fii da ñëwaat fii taalal ma sa micro <laughs> waxaat leen billaahi li ma la wax di jaaxal barke la. jërëjëf ok merci. waaw ah, non mas dem wax dëgg yàlla ñun ñëpp Sénégal yëpp la bett quoi parce que te équipe nationale équipe nationale bi ni am quelques joueurs dañu ah amuñ amuñ joueur boo ne day toog ban ah, équipe bi dañu dañu di dañu sonal mais loolu nekkul yoon quoi waaw. yoo gis ne Aliou boobu léegi day defar est-ce que équipe nationale euh, joueurs ci nekk yi dem ci championnat yu mag yi est ñun war nañoo toll fi ñuy defaree boobu léegi. non non parce que Aliou Cissé Aliou Cissé ba di ba mu yor équipe ba léegi ah, parce que ñëpp moo leen yoroon instant yi instant yi dépassé na foo xam te ne day defar. waaw Ismaël dépassé na foo xam ne Ismaël day defar ñun ñun équipe bi ñu yor normalement ñun Ismaël war na taxaw di football ak Espagne football bu set boo xam te parce que Espagne ëpp ñu ay joueurs ñu ñun yoo xam ne moo ñu daax football suñu équipe dañoo gis ne ah, ah, finalu daaw bi ah, ñun ak ñun ak Algérie ñu gis ñu Sénégalais saa yi mu njëkkee dugal rek moom pour mu égaliser day metti ñu yaakaar loolu noonu est-ce que nekkul ne ci kiwu course bi la wala mais loolu ci erreur course bi la parce que tey jii amuñ joueur boo xam ne tey jii mooy def passe décisive amuñ oh, Sénégal amu ko su su fekkee su fekkee te wax nga dëgg rek amu fi ah parce que ñun ñun heure bu ñu dugalee rek ñun am nañ problème ah mais loolu nag instant yi nii faaw nag ñu wut joueur yoo xamante ne instant yi wala wala joueur yi nga xamante ni ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci équipe nationale ah Aliou Cissé ku nekk mu lay football loo li nga xamante mooy sa poste normal. nga jàpp ne Aliou Cissé kër du football loo gars yi lu seen. non non. parce que parce que Alioune Alioune Seye yow day day day day talax talax talax rek ah lu ko defee nii tey suba mu def la le ah xam loolu tamit day xaw a métti ci ci ci joueur yi tamit waaw. dañoo nekk ci compétition di waajal compétition je veux te xam na démb ni ñu fubalee bon euh, noonu nga mënoon bon mënoon nga am lu gën loolu mais comme am nga machine nul tane na mais baaxul li tax baaxul mooy da nga ñaari machine nul te équipe yi nga dajale yaa leen mën donc da nga ko jël au sérieux loolu la quoi. mais est euh, bu Sénégal yor war na taxaw ak ay yeneen équipe yu ndaw yi te am na yenn ay adversaires yu mag yoo xam ne war na mën a dayee ak moom ci compétition bii di. moo laa xam nga xam nga xam nga dajeeg équipe yu soo dajeeg équipe yu mag yi day feeñ yaa ngi dégg parce que tey euh, grand yi xam nga fu ñuy xamee ne c'est les bu ñu dajeeg grand yi def leen ko mais Sénégal euh, dañoo yàgg am difficulté bu ñu dajeeg équipe mag yaa ngi dégg donc compétition yi nga xamante bii ñu weesu nga xamante ne moo doon moo doon Coupe d'Afrique bi feeñ na ci yaa ngi dégg dañoo am yoon bu baax rek mais dajewuñu feek ponkal boo xam ne tax na ñu ponkal mais suñu yoon moo baax xam nga compétition parfois nga am yoon bu yomb dem final mais li lay wan ne ko nekkoo à la hauteur mooy boo demee final boo dajee grand bi rek dala ko dala koy def moom moo dala compétition bi passé mais Sénégal ku ne xam na ne wax dëgg yàlla Coupe d'Afrique bi passé bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xamee suñu bopp ñun compétition compétition bi ñun ñoo doon yëkkati yóbbu ko suñu dëkk mais si dañoo gis ne tamit ñun ah, équipe bi saa yu leen jiitalee dañu am problème égalisé gisoo Algérie final ba looloo ñu dal ba instant yi nii noonu lañ mujjee ñàkkee final boobu. loolu moom leen moo ko indi mooy da ngaa amul kaw bu baax amul attaque bu baax waaw ah, da ngaa amul attaque baax amuloo attaque boo xam ne dañoo décisif tu vois donc Sadio Mané nga fa am boo xam ne moo tane yaa dégg mais benn jour mun a lijjanti euh, compétition lëmb du nekk chaque jour à top parce que mën nañoo jàpp ne ah suñu coach bi moo moo moo a des. donc coach bi moom waxuma la euh, waaye à 75 pour cent à 75 pour cent amul niveau donc compétition bi passé soo amoon niveau moo mën ti compétition bi moo yor bu kenn yorul yaa ngi dégg classement FIFA tout le temps da ngay jël premier mais boo demee ba ci compétition bu mel ni yéen yow yow yaa nekkoon premier par classement FIFA chaque année da ngay génn Sénégal moo nekk au top mu finiree poule bi premier mais bu demee compétition dafa mel ni compétition coach moo koy gagné coach bu mën compétition tey mën ngaa am quelques quelques joueurs yoo xamante ni yàlla def na ñu ñu nekk au top ñi des nga gérer leen mën ngi nga mën compétition moo xam nan nga leen di tegee. ñoo jàpp ne chaque jour day defaraat est euh, moom warul weesu ci en tant que équipe nationale di defaraat chaque jour. weesu na fi ñuy defaree Sénégal ñun yàlla moo ñu dimbalee mën nañoo am ñaari équipe ba ñetti équipe ñun mën nañu am ñaari équipe ba ñetti équipe que yàlla moo fi def loolu yàlla moo ñu mos a defal bu baax. ñun Sénégal boo xoolee rek Sénégal labda bi daa gëm football affaire de koñ yooyu noonu donc loolu lu fi ne la lu fi yàlla def la donc defaraat euh, war na ko weesu parce que xam na moo tax moo xam ni ngay xam xam xam ni ngay utiliser sa ay jours rek moo des te loolu xam la moo ko mën expérience ak niveau expérience ak niveau Alioune amul expérience dese na am niveau finalam bi passé contre Coupe d'Afrique ñàkk expérience lañ ko gagné mais moo gën ki mu doon footballal final bi moo gën fuuf moo ko mën mais coach bi moo ko gagné waaw match bi de man seetaan naa ko démb waaw li ma ci gis nag xëy naa mm, ku xam na ne am na ay manquement yu ndaw yoo xam ne war nañ ko xoolaat defaraat ko joyanti ko waaye malgré tout nag gis naa ne match bi moom wax dëgg yàlla nag baax na parce que tam xam nga nit tam euh, équipe bi ngay dajal il faut nit ñi xam ne li Sénégal bëgg moom la yeneen réew yi bëgg te ñoom tam bu ñuy ñëw dañuy tàll ñu gën ci ñoom préparer leen pour ñu ñëw jongante ak Sénégal loolu faaw nit ñi bàyyi ci xel bu ñu jàpp ni équipe yi ñuy dajal ñoom itam dañuy ñëw rek noonu pour seetaan si wala pour ñëw participer déedéet dañu ñëw ñoom itam bëgg li Sénégalais yi bëgg euh, loolu nag moo tax ma yaakaar ni xam naa ni ay na luñ ci war a joyanti comme Sénégal dañ ni mooy euh, première dama équipe boo xam moo jiitu ci Afrique bi yaakaar naa wala deuxième loolu tam dañ koy rafetlu man daal gis naa ne wax dëgg yàlla am na lu ñu war a joyanti waaye nag duñ ni moom moom baaxul moom waaw te ni nga gisee équipe Sénégal am ay joueurs yu mag joueurs yoo xam ne ñu ngi ci club yu mag yi est-ce que tamit war nañu mën a jàkkaaroo kii di Eswatini di niil ak ñoom. waaw xam nga football moom dëgg la professionnalisme am na ci solo tax da am na yenn joueurs xam si ne dañ leen di séentu bu ñu ñëwee def dara. waaye itam li nit ñi mën a xam mooy dafa am yenn joueurs yoo xam si ne suñu ñëwee man par exemple équipe bi nga xam ne équipe bu ndaw la en général heure boo dajee ak moom. maanaam jom ji muy wane ak maanaam la muy la mu koy jalal dëgg-dëgg xëy na maanaam dana tax ba yow pour nga mën ko dóor dafay jafe loolu dañ ko gis ci un peu partout même ci camp euh, ci ko ci gis en général même équipe yu am difficulté ak dóor ñu ci mel ay Barça ay Real Madrid sax wala wala Juventus des fois yéen équipe yi bu ñuy dajee ak ñoom dañuy am dañ beaucoup de difficulté même bu mel noonu quoi dafa am ñeen soxam bu ñu ñëwee itam euh, par exemple ñoom seen final la am ñoom bi ñu football ak Sénégal yow day mel ni ku final ak moom parce que day jàpp ni Sénégal su ma man li ma bëggoon am naa ko malgré que man même bu ma demul ci compétition bi sax am naa li ma bëgg xam yu mel noonu mooy tax daal waaye nag euh, gis naa ni Aliou Cissé bon euh, xëy na am na ay manquement daal mais am bu ñu defee ay amélioration tuuti rek dina baax parce que wax dëgg yàlla gis nga ba dañ ko xool ci résultat nag parce que dañu waxante dëgg ay la euh, am nañ fa entraîneur bu nekk mais à part Bruno Metsu bon ba ñu amuñu beneen entraîneur bu def résultat comme Aliou waaw parce que tam boo xoolee match yu mu def bon li mu ci am ci ay victoire am li ci am match nul ak li ci am ay défaite boo comparé da nga xam ne résultat bu baax la malgré que nag xam Sénégal moom li naan maanaam nit moom bu xiifee moom bon li muy xaar mooy lu ko mën a jox mu lekk rek ma euh, loolu la ñuy xaar Sénégal yi moom li ñuy xaar ci Aliou Cissé mooy coupe ci boppam moom la Sénégal yi soxla moo tax lépp lu waay di mën def duñ ko gisati malgré que nag ko nag waaye yàlla baax na may dinañ ko am it nañ def ndànk-ndànk rek dina baax incha allah. Eh, mi gisoo tamit euh, équipe bi dafa xaw am problème pour bu ñu ko jiitalee pour mu dem di ko jëli parce que ci Algérie final ba ba mu dugalee noonu lañ jàppoo ñun ba keroog match euh, a Sénégal moom du ma ne sax Aliou Cissé même entraîneur yi fi mu jaar Sénégal équipe bi équipe nationale boobu problème bi mu sa amee yi fi jaar yëpp problème boobu la ñu heure bu ñu leen dugalee moom heure bu leen dugalee dañu am dañu toppaat ci ginnaaw même bu ñu dugalee dañuy égaliser loolu moom ay ay manquement yoo xam ne bon waaye nag au fur et à mesure gars ko ko liggéey parce que al Hadj loo tax ñu teg ko fa. loolu xam naa jaar na ci football xam na lan mooy football quand même aussi na ci xam-xam au na ci xam-xam. donc yaakaar naa ne am na yoo xam ne ay manquement la mais da koy defaraat doyanti ko taxawaay bi incha allah rabbi bu ñu demee bon yàlla mën nañu may ndam.